بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد قديم من تماد محمد يقول عبد الله وهو أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وزريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همازات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرني الحمد لله الذي بجلاله تم مسالحات الحمد لله على كل حال سبحانك لا علم لنا إلا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ساد لساني نغر جناني سافي أماني وزيد براي ربي شرح لي صدري ويسر عمري وحلل عقدة من لساني واحلل قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokk dëkkandoo yi mbokk wëlëre yi ak fu waay ci àddina du seetaan noo ngi dellu siwaat ak yéen suñu émission bi ñu tuddee jàmm doy ngeen ànd ko seen xarit seen soppe Cheikh Ousseynou si Naaru Borom Touba fii ci Prestige Thiès TV dégg nga ci ngent di wax ne ñoo ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moo yor jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci àddina si dégg nga ci barke Seydina Muhammad sallallahu sa wasallam di wax ne noo ngi siyaare bu baax ki nga xam ne kii dégg maam tey bu ngeen déggee mbaa ngeen gis nu ñoom tax muy waa Rési dégg muy alaaji seen dégg nga ànd kook suñ Lamine dégg nga waaye mu ngi ko ànd ak dégg nga ki nga xam ne mooy du ay sa ànd ko Satina Ndione ak mboolem waa Prestige gépp dégg nga ñuy ñaan yàlla na yàlla guddal seen fan wéral leen dégg tele télé bi yàlla na mel ni Lamp Fall su ko defee dégg man noonu la ñu siyaare sunu euh, yaakaar te ëllëg mu sëñ Muntaxa Mbàkke Basiir bisil bachar mu bachir bil bishri bashir laa nasir mooy borom mbég bu ñu mbég la si mbég mbég mu ànd xuppe ba na yàlla na fi yàgg lool تنال بي يالنا كو اغالي تنو اند كو مو تبارك شيخ قديم نون لا ني سياري دي مام سيغ محمد بن فال مو سيغ مود امين مو مام شيخ رفال لام باب المرجين ميغا خامني موي خالد جنرال دي باي فال نون لا ني سياري سيغ موسى فال سيغ باك فال ديكو سياري دي مام سيغ شيخ موند فال شيخ سالي فال مام شيخ ابرا فال واي نون لا نكوي سياري سيغ شيخ ديغال فال شيخ فال باي غور مام شيخ ابرا لام باب المرجين اك سونو خالد باك فال سيغ مود موسى فال مام شيخ ابرا فال نون لا ني سياري سيغ سالي تريم مخادم رسول ديكو سياري دي واك Cheikh Abdou Aziz Aydara dégg ki nga xam ne mooy xalifa bi ak waa Ceneba ñoom ñëpp Ceneba Seck bàyyiwuñu kenn xalifa bi di siyaare di maam mbooleem salsel yu dabbaax yu waa bit ak ñaseen ak laayeen rawat na laayeen yi nga xam ne dégg maam ñoo ngi def appel bi ajibo daay laay dégg woote bi dégg maam ñoo ngi ñaan yàlla na ñëpp dem jàmm di sa jàmm te am yoolu bis boobu ci barke Seydina Muhammad dégg nga kon su ko defee tey jii dégg maam ñoo ngi dellusiwaat and ak suñu njabot comme ni ma leen koy waxe toujours rek suñu njabot lañu andal njabot ñu xamni deg maam jank xasaay lañu def deg ma toujours dama la koy wax ma leen xalé yi nga xamni dañoo bayyi lepp deg maam bàyyi carte bàyyi football bàyyi dégg leneen ak leneen ak leneen yu bari xam ngeen ni mu toll lépp jàpp dégg maam ci Seydina Muhammad salaa jàpp ci xes yi dégg maam di tagg yonent bi salaa ñooñu ni ñuy dimbalee ñi nga xam ne ñoom ñooy musiciens yi ak footballeurs yi noonu lañ leen waroon a dimbalee lu ko raw ndax ñoom seeni bis dégg maam li def dégg nga ñëpp dañ leen ci war a jàppale dañ leen war a am ay sponsor tey nag ki ma leen indil nag dégg nga Babacar fay dégg nga xasaa it dégg nga dëkk ca njaareem di jànkat bu mag boo xam ne bi dégg am maam kalla incha allah su ngeen ko déggee di ngeen xam ne moom mooy kan fay nag soo ko déggee dégg nga sa xel war naa dal ndax soxna aana fay moo daan dootal Serigne Touba ba Serigne Touba ne ko soxna aana fay yàlla na yàlla fay ngeen gi fay moo tax ku sant fay ku ne bu góorgóorloo dégg maam sa lépp day baax rawat na nag kuy jàng alxuraan waaye nag dégg nga moom ko ànd ak dégg maam Mouhamed Ndiaye dégg nga ànd koog euh, Baye Cheikh dégg maam fay moom tamit ñoom moo jógee dégg maam njaarim ñoom ñoo ànd ñëw tey jii ñoom lañ leen fas yéene dégg maam leen bu baax a baax waaye noo ngi sant dégg di gërëm tey ñaanal borom télé bi di sunu doom di Pape Doumbouya dégg nga doomu Seydou dumbuyaa ak Soxna Fante Diop noo koy ñaanal yal yàlla guddal fanam yal na yàlla wéral ko yal na yàlla kàttanal ko Cees ca kanam bi mu nekk tamit dégg nga na nekk ci kanam rek dégg nga ah li mu naal di ko liggéeyal dégg askan wi yàlla na ko ci yàlla defal lu koy njortam te yàlla sàmm ko aar ko dégg eh, suturaal ko ci barke Seydina Muhammad noonu laay sante dégg nga mboolem njabootam ak ay soxnaam ak ñoom ñëpp su ko defee nag dañuy daal di dugg dégg nga ci liggéey bi mooy. dégg nga Babacar Faye la ñuy jox rek dégg maam mu daal di nuyoo waaye xas dalay lay jëkk nuyoo dégg maam doog a dugg ci ci ci leen kon Babacar bismillah tafaddal mashkur yaa man yaraa ma fi damiri wa yasmaw antal muwaaddu li kulli ma yutawaqaw yaa man yaraa في الضمير ويسمعون بك أن تغنت عاسيا الفن أجزل والمواهب أنزل يا من يرى ما بي كجب يونت بي دفل لي سلوخ أنتل نار برم توبا sama baay Useynu naaru borom Tuuba xasali majdiga al tuxannat asiya المن أجزل والمواعد أوزل يا من يا واو واو واو لكل ما يكتل اللخي ثم صلاة على النبي وآله خير القلائق صافي ومصفى يا من يرى سين لا ويا شعر سين توبا قياتي عند بابك يا سيرين بابك منه إزيان ونسيان وسوى بعد ساعة إعصان وفضل بعد إعطاء أبا بكر ناجر بلطف يا إلهي من لو ذات تلل قتك مويل سنبي صدقياتي عند بابك يا جكوك أنت كافي أنت شافي أنت كافي أنت شافي أنت كافي يلا أنت شافي لا تهرمن إلا أنت شافي يوم يلا أنت كافي ولا يقيبن يلا أنت كافي يرجوك يلا يلا أنت كافي وفي قلبك يا نجيب لخيك tawagaw man de yéen yaay bu fi gën a bëgg naaru si tun bambake man de yéen yaay bëgg anta la tahriman ila ma ruux yan waaw waaw waaw falaa yaqiban ma kaafi fi gën a bëgg yónent bi loxo yi ca kaw kaw baay Useynu laay bégal naaru sëñ Tuuba laay wayal naaru sëñ Tuuba laay bégal Thiès TV yéen laay bégal naaru sëñ Tuuba laay bégal yaa Cheikhana Ahmadat Tijaani man jaana alal wasaa'il rahmaani man jaana أنت كافي هذا الزمان زمان أنت كافي عال جملتنا وأبواب في كل يوم بما نشاء يا سل أنت كافي في جنبك سري يلا أنت كافي سل أنت كافي في جنبك سري يلا أنت كافي أنت كافي وأنت كافي يلا أنت كافي anta kaafi yàlla anta kaafi yàlla anta kaafi yàlla Muhammadu xayral xalqi anta kaafi yàlla yàlla fi gën a bëgg Serigne Touba Mbacke defal ni ñu màggal Serigne Touba yàlla anta kaafi yàlla anta kaafi yàlla anta kaafi yàlla anta kaafi yàlla anta kaafi yàlla anta kaafi الخلق يا شيخنا أغمدت يلا أنت كافينا يلا عن وسائل يا الرحمن مجانا يلا أنت كافينا يلا أنت ربي يلا أنت رزبي أنت لي نعم المراد باللطف يا إلهي من زاد الغلي sidqiyaati mbay nda baabik yaa jaka wagaw xabulana munkan kabira xabulana munkan kabira xabulana munkan kabira xabulana munkan kabira xabulana munkan kabira ajjina min yàlla rabbana yàlla antani yàlla wal munadi amoo moroom jurbilul fi ya ilahi man law zaadul xali wa mulisun bi siddiqiyati bay inda babika ya jalil tabarakallah tabarakallah ah sëñ Babacar yow xel yépp dégg maam dal na xool yi bëgg nañu dégg bu ñu la tuddee sëñ baabakar Faye dégg nga kon su ngeen déggee loolu ngeen xam ne kii taalibe Cheikh la dégg nga taalibe Alaaji Malick Bakar rek dara maan aram loo kumba ci am bàyyi Cheikh Abdou Aziz da baax Malick dégg nga maam borom sikkim bu jekk ba 40 ans xalifa serafot dégg nga bàyyi Seydi Ababacar Si borom bonekaare bu jekk bi du ko jengal te du ko wengal te du ko sengal fa mu ko tegoon daaw la koy teg ren fa mu toog lay toog di fa aajo kooku moo bind xilaas zaab baay moo bind xilaas zaab fanweeri bunt la 1133 bayit la da koo tàmbalee waaw jeexalee ko waaw wa innahu is aradalaahu nashatana abbaana min nuurihi nuur nabil alamin déggal li mu wax si rasulullahi ah te naboo nooru xat mi leelu ku moo xat xalla fi qimatin mataari qiyam an aatiroo baaxiroo xayr buxoo roof la jool sajaar daa takrib ala xisan kookoy njool faama kii di taalibi si njool faama dégg nga kon bég nañu lool sëñ Babacar suñu xol sedd na tubaarkalla xam naa dinañ jël suwaat ak yow waaye sëñ Babacar dañoo bëggoon rek balaa ñoo dem dégg nga am na koo xam ne ki dégg maam moom la ñu bëgg a jàlle dégg maam di sëñ Fallou Ndiaye Daara dégg nga damaa bëgg képp koo xam ne ki bëgg nga déglu dégg maam émission bi na nga jàpp dégg nga maam rajo bi rajo bi boo ko jàppee direct la dégg nga mooy quatre-vingt-quinze point cinq dégg nga loolu mooy fréquence bi muy muy prestige dégg nga boobu mooy rajo prestige dégg nga incha allah su ngeen ko jàppee di ngeen dégg émission bi waaye bu àjjuma di ngeen seetaan émission bi dégg maam bu nu jullee tisbaar ba noppi ma ne Fallou Ndiaye daara dégg maam di jàngalekatu alxuraan dégg nga ceraay ba fële ci yoon Tiwaawoon dégg nga bisam bi la 4 mars la dégg nga ñoo ngi ciy woon ñëpp Fallou daal ni mu ko daan wooyee dégg nga ànd kook sëñ Mataar kon noonu la ñuy wooyee ñëpp bisu alxuraan nag bisu alxuraan la képp ku si ñëw dégg da xam ne bis boobu bisu alxuraan la bi ci des dégg maam mooy suñu xarit di suñu soppe dégg nga suñu mbokkum taalibe mooy sëñ ngoore fay dégg maam moom tamit fay la sant dégg maam mu nekk ca fayu dégg di def bisam boobu la 4 mars moom itamit dégg nga nga xam ne bu dee njàng mi sëñ Baara Cissé dégg maam sëñ Jugo Cissé moom mooy ñëw ca njàng ma waaye dégg maam mu ci woo waa fayu gépp dégg maam di ci woo dégg maam ki nga xam ne mooy soldaaru sëñ Touba dégg muy kan ah kooku kenn ku ne dégg maam mën koo xam dégg maam dëkk ca jaxaaw dégg nga nga xam ne dégg nga daayira Touba Jaxaaw dégg nga maam sunu baay dégg nga maam Baye Saliou Ñang dégg nga moom dégg nga ak Aliou Cubb ñoom ñëpp dégg maam dana ñëw ci bis ba ñoo ngi woo dégg maam képp koo xam ne ki taalibe la rek dégg maam ca fayu dégg nga nga xam ne bis boobu bis la boo xam ne bii dégg maam ah bis bu rëy lay doon dégg nga sëñ Ngoore Fay nag moo koy def la 4 mars la incha allah ñoo ngi ciy ñëpp dégg nga man mii ku ma fa dëgg nee ma marsa dégg nga bi ci des incha allah bis bisimilah taalaa dégg maam ñun ñëpp ñu xam ne dégg maam kii nga xam ne mooy suñu xarit di suñu wëllëre di suñu lépp dégg nga ñoo ngi ñaan yàlla na ko yàlla bàyyi te wéral ko te kàttanal ko dégg maam muy sunu doom ji dégg maam moom lañ bëgg dégg maam mu nuyoo rek dégg nga nu daga jàll ci émission bi waaw. macha uh-huh, allah salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. nuyu papa bu baax. waaw. macha allah di jiital ci nuyo bi suñu wéyjur yi ñu bàyyi ca kër ga. Mm-hmm. di ci jiital suñu papa bay papa jibi ñu koy dàqantali papa jiwi mm-hmm. ko nuyu bu baax di ko ziar waaye di nuyu suñu tante ñi ñu bàyyi. Mhm. nday Bayam Diop waaye yow mi itam di la nuyu di rafetlu sa sa teewaay sa kàddu macha allah waaye di nuyu ñi ma àndal Mouhamad mi di ko ñaanal yàlla moom tam wax dëgg fa yàlla gannaaw yàlla sama sama sama jëm ju xeebu ji moo waral mu dagg ay yitteem ngir ñëw ànd ak man ci émission bi te ñuy def ni moo ñu ko daax fop di nuyu Baye Cheikh di sama rakk moom tam di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla macha allah nuyu ñëpp daal di leen ziyaara ñu ñu nekkandiku foofu ba ci kanam jërëjëf jërëjëf kon su ko defee rek euh, ki nga xam ne mooy Mouhamed Ndiaye ñii dégg nga ah Mouhamed Ndiaye jaxaaw gii la dëkk dégg nga ku xam dégg maam Baye Ibrahima Mbodj xam dégg nga njabootam ma fala yaroo xam Samba Mbodj di mag ci moom ak lépp dégg nga maam ñooñu nga xam tàgg yonti rek la ñu def ak jàng alxuraan kon Mouhamed noo ngi lay wax daal bu baax a baax dégg nga Baye Cheikh noo ngi lay sant yow tamit dégg nga di la gërëm bu baax a baax su ko defee rek dañu dil siwaat dégg ci ki nga xam ne mooy si Babacar dégg nga ana loonu indilaat dégg maam لم يساوك في ولاك وقد غاب لسنا منك دون أم وسنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يساوك في ولاك وقد غاب لسنا منك دون أم وسنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يولد بعدم بعض الفارق فما داس درع إلى عن ضوئك الأدواء صلى الله عليه وسلم yonent bi nee na ki gën a nay ci sama xeet mooy ñu tudd sama tur te waxoo sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam أنت مصباح كل فادل فما تاس در إلا عن ضوئك الأدواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم papa Ousseynou mag ñu baax ñëpp way nañu Seyduna Muhammad déggal Bamba nee na mhm. Muhammadun misaalu lam yaati laay dëgg la fi ma mada wa abadan la yaati Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sabata anna rabbana la yuridi mislan law fa min law la yuridi sallallahu alayhi wa sallam Baay Ñas nee na muhammadun mustafa awlaahu mawlaahu kullal qataaya wa adnaa wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane الشيخ تنجان الشيخ تنجان ديغل سرين بابا كرشي نينا شيخ يا راحلا متصبح نور قبالي نأول جناني روحي وريحاني الشيخ تنجان أدي الألوكة من أسير غلاتي هذه الحواجز مدة الأزماني الشيخ تنجان أدي البيان لأليان متزايفا بالوافدين وجملة سكاني شيخ تجان لا تقصرن توسلا وتضرعا وترفعا بالعين وتجاني سرين بابا كرسينينا شيخ تجان شيخ تجان شيخ تجان يخني القواتب عزته لآله متسائم الأهداف والمرجان يوح بدت يورى بتأين من كل ماء نازر والآني شيخ تجان وتشخشات أدواؤها وشواؤها وتؤم بالأقطار والبلدان شيخ تجان شيء ها ngeen lool de cheikh jandey moom ah li li nga wax de moom neex na lool wax dëgg yàlla sëñ Babacar eh, yàlla na yàlla gën a guddal sa fan rek yàlla gën laa wéral dégg maam ah, suñu xol sedd na bu baax a baax kon su ko defee xanaa dañoo bëgg a eh, nga indi laatal nu rek leneen loo xam ne dégg maam da nga koy mën a aw su ko defee dégg maam bala temps bi xam naa li si des dégg maam bareetul waaye nga tënkal du rek dégg maam su ko defee waaw walay sali amalun alhaaka ya أملي سوى المحبة والتعظيم والزمان على النبي وعلي أنا يبقى سرين فالو مباكي بورم كسر ربنا دائما أنا صبي ثم بن عوف وسعد سابيا لخي جيغو سابيا لخي جيغو سابيا أبو بكر سابيا أين عمر سابيا لخي جيغو سابيا أنا صبي محمد سابيا rasulallah ana ñi bëgg yonent bi ya rasulallah ya, ya habiballah wa wa wa ya rasulallah ya, ya jara magal sama mbay usinu ya rasulallah mbay usinu sama may sayyiduna muhammad ya Rasulullah, ya jara borom Tuuba sama may nen ya Rasulallah jara magal waaw waaw ya Rasulallah bëgg bëgg naa Serigne Babacar Si ya Rasulallah ya Rasulallah ya Rasulallah papa Sey ya Rasulallah papa Sey sama may nen ya رسول الله محمد الصافي يا جرمك يا محمد يا حبيبي يا محمد قلت بيبي يا رسول الله يا جرمك ak xam koy Mamadou Lamine ya Rasulallah Rasulullah Muhammad sabaya ah Muhammad suturundu ma way ya Muhammad kunte bi bi ya ya magal Muhammad suturundu ya ya magal ay way ayo Muhammad suturundu suturundu de yow lay bëgg ya Rasulullah Muhammad sabaya Rasulallah Muhammadu TV Muhammadu Samba ya Thiès TV de la Instagram ya Rasulallah Muhammadu Samba ya magal Muhammadu Papa Ousseynou yow laay bégal Papa Ousseynou yow Abdoulaye Ndiaye doomi Abdoulaye Ndiaye doomi Abdoulaye Ndiaye ibnu Abdoulaye Ndiaye doomi Abdoulaye Ndiaye doomi Abdoulaye Ndiaye doomi Abdoulaye Ndiaye doomi Abdoulaye Ndiaye sallallahu alayhi wa sallam ibnu Abdoulaye Ndiaye doomi Abdoulaye Ndiaye doomi Abdoulaye Ndiaye Abdoulaye Dia ibnu Abdoulaye Dia madi ibnu ajaku sabi yanen loxoy jaga madi ibnu Abdoulaye Dia agumu jaran loxoy jaga madi ibnu sopp Sëriñ Fallu loxoy yàgg bëbbati ibnu Abdallah aa ku mu jaral loxoy yàgg bëbbati ibnu yaa ñu doy mbay yaa ñu doy mbay aba loxo ca be walu bay mbeen yaa di giñ mbambulaan di sey walax njaan Papa Ousseynou nag ku ne xam na ne ñu ngi ci weeru Kazu Rajab kon mënu ñoo way ba paré té bakuñu Serigne Fallou ñun ci yow la ni naan di sa mbey ko koy Allah di Fallou Mbacké présidente ci diggante Alaaji Touba fooy tukki màkk fooy ñibbi Touba baay Bamba ku sa maam ñun ci yow la ñu di sembey sembeeloo ma dégg di baay Touba Seex Rafal nee na yoonu sëñ Bamba bi bu donnee bu sëy la xanaa yógoo bu sëy mi man la ni jox càng la faraxati ñu des keroog ci ñaar der Bamba bépp faar ne ko yowa ëllëg yawmal xiyaamate boo yoomu na duma waaye bu ngeen ma ne yowa ma ne leen doom mana ku bëgg Amadou Fall Seer Njaay diggante njonge ak njaba di mam seer diggante njonge ak njaba di mam seer dandan dajaloo dinaani biteel yaa tax nu jebunu toxal nga poon man daan tuxe fal nu bàyyi mbenn yaa di géej mbambulaan ñoo di sey walla xijaan yawmal qiyaame yóbbu ñu aljana topp Seex Fallu laaj ya dex ya ngay tëmbeeloo yow waaw kay sëñ Babacar ah xol yëpp sedd na xam naa ñi déglu sax rajo bi ñoom ñëpp seen xol sedd na ndax yow bàyyoo fenn <laughs> yow moom euh, universel nga waaw wax dëgg yàlla loolu mooy diine nag dégg nga waaw Tijaan ak Xaadir laay salsel yu dabax yi wax bi te ñasee nag mu ak ñépp ñoo bokk benn moo bi mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ah yow moom wax dëgg yàlla ñun suñu xol sedd na bu baax a baax te xam naa ne ñi lay déglu yëpp seen xol sedd na waaye bëggoon naa nag nga joxe numéro bi hmm. nit ñi mën koo xam hmm, dégg nga seen numéro lan la 77 waaw 328 10 40 waaw 77 328 10 40 10 40 waaw kon hmm, kooku mooy numéro dégg maam sëñ Babacar Faye taalibe Cheikh nga xam ne dégg maam dégg ngeen ko bu baax baax kan mooy sa sëriñ ci ci sëñ si waaw sëriñ Babacar moom mooy suñu sëriñ est-ce que waa kay mooy suñu sëriñ dëgg la kon kay kon su ko defee tamit ah, noo ngi leen di xamal ne suñu xarit suñu soppe dégg nga di sëñ Mansour si Jamil dégg nga mi nga xam ne dégg mu sëñ Moustapha Jamil dana ñëw jaxaaw incha allah le 4 mars comme ni mu ko fa daan ñëwee rek ànd ko waa daayira bi yépp dégg nga kon ñoo ngi koy yëgal képp koo xam ne kii rek suñu xarit la suñu soppee la dégg nga ndax at mu ne su fa ñëwee man dina ma woolu dinaa ñëw dégg nga ñu jox ma kàddu mu defal ma teraanga dégg nga ñoom ñëpp ñu defal ma teraanga kon ñoom wax dëgg yàlla ñu ñaanal soxna aana dégg nga yàlla na yàlla dégg maam dolli leeram ak mboolem ñu jiitu ñëpp dégg maam ak ki nga xam ne kii dégg nga ah, mooy suñu baay ay sekk dégg nga suñu ndey ja sant ñang ñoom ñëpp dégg maam ak rakkam ja ñëpp yal na yàlla xare leen ajjan Moussa Seydi Bousso jaxaaw nag dégg maam man 1958 laa fa ñëwoon dégg nga ma fa jógee léegi yàggul dara 6 ans rek la waaye jaxaaw dégg maam sama dëkk la sama kër la sama lépp la ñëpp ñoo fa dëkk dégg maam maa ngi ñaanal dégg nga alaaj Cerno ki nga xam ne mooy Cerno jàlloo dégg Thierno Arsane Diallo yal na yàlla doo leeram ak soxna am saak njaboot gi ñoom ñëpp di sant dégg maam mboolem waa ko ku fa ne su ko defee rek xanaa di tàggoo tàggoo bu dul tàggoo rek dégg maam euh, kon bisimilah sëñ Babacar daa waxtu yi jeex na ah, tàggoo bu dul tàggoo rek ñoo ngi nuyu di ziaraat di bég di kontaan wax dëgg fa yàlla mhm. ci invité bi wax mhm. dëgg fa parce que li tamit yow nga suñu papa nga suñu maam sax la ñuy wax wallaay dëgg maam nga wax dëgg fa yàlla mën naa ne benn yoon la ñu gisante waaw Jurbel ca bisu fàllu ba maa koy nuyu moom tam di ko ziar bu baax bisam bi neex na keroog trop boobu la jàng mu neex ak yow bii sax wallaay <laughs> ñu noo ay taalibe lañ rek di di sàkku ñaan rek nag ci yéen ndax ko leen ñaanal rek am nañ dinañ ci am yaakaar di nuyu sama gaay surtout Muhammad mi wax dëgg fa yàlla moom dafa def lu rëy dafa def lu rëy moom suñu suñu frère la mën nañ ne mu dagg ay yitteem ngir sama jëm ju xeebu ji ko neexoon mën na ko ci bañ a fekk comme li ma wax rek moom mii mm. dëgg fa yàlla li muy def ñu nuy def ñi ñun ñun moo ñu ko dàq <laughs> waaw mu ànd ceeg <laughs> woyof lool nag dëgg fa yàlla kon faw ñu saan ko gërëm ko waaye ak sama rak Baye Cheikh bi ñu àndal waaye nuyu ñëpp di ziar ñëpp nag macha allah di nuyu Serigne Sam Mboup bi nga xamante moom la ñu yàlla booleel mooy suñu kilifa wallaay dëgg la di ñu tàggat ci yoon bi waaw moom di ko yàlla baaxal moom tam di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla bu ko kenn ëppale ci ko xamul fi mu bariwul ci àdduna keroog bi may dem <laughs> jaareem dégg maa koy dégg dégg maam ci télé bi waaye dégg ma ma ne sëñ Sam moom xel mi tubaar xel dégg li mu mi ngi noonu ñun nag tagg la ñu bëgg wallaay dëgg la ku ñu jàppale daal ku ñu jàppale daal jàppale ñu tagg yonent bi macha allah moom daal dañu fas yéene am teraanga waaw incha allah rabbi kon sëñ Ahmed. ñëpp ziar yow tamit nga tàggoo tàggoo bu dul tàggoo rek. di la nuyu di la nuyu yow sunu bàyyi. waaw jiital ci nuyu bu baax a baax wallaay. di sant ñëpp di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni ñoom ñooy seetaan seen mm. prestige. waaw TV waaw di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di nuyu sama waa ji sëñ Babacar jóge ba Jurbel ndax sa jëm ji ak invitation bi ku ne xam na ni Thiès ak Jurbel sori na waaye mu bàyyi lépp ñëw suba teel ñëw fii ci ci ci télé bi waaw di ko ñaanal yàlla na yàlla yokk kattan géeg mun mun gi ci barke di ko ñaanal kenn bañ ko ëppale ci ci tànk moom fii suñu gan la fii ci kër gi leen dëkk ci kër gi leen dëkk moom mooy sunu gan kon nag ñoo ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla dolli teraan dëgg la lépp lu waaye di am ci yonent bi daal moom moom du ko raw ci barke di la nuyu tamit di la ñaanal yow tamit nga yàgg fi lool yow soo fi yàggee sunu njëriñ la sa yàgg sa yàgg sunu njëriñ la ñu ñëpp yéen ku si nekk dégg maam sunu sañoon uh-huh. ndax ñu mel ni yéen léegi mm. nga dañ leen a war a xam mm. xam nga fii mu ne nii dégg maam ah euh, yenn jànkat yi dégg nga maanaam yow jënd ñoo publicité wala di ko kii am déet. Ah, sëñ Sam dégg ma kan ma fi nekk dégg ma naan ne koy wane ak da nga koy kii ah sëñ Sam bu waxal rek dégg na ah euh, ak euh, ñeneen ñi ñoom ñëpp dégg maam kon su ko defee yéen ñi nga xam na dégg maam da ngeen bàyyi lépp dégg maam doon ay naaw dégg maam hmm. dikki yéen tey man su ma sañoon hmm. kenn ku si nekk gratte-ciel laa lay tabaxal jox la ay Rolls Royce eh, wutal la eh, ay soxna yu rafet. di jox ay milliards barke Sidna Muhammad ngeen tàgg sa maam yonent waaw ma sa loolu laay def kon su ko defee dégg nga Baye Cheikh yow tam nga tàggoo rek rek ma la yow tam bisimilah. naa di la sant la gërëm rek. waaw di ñaanal yàlla waa télé bi yàlla yokk ko. amiin jaay nabi nu sallallahu alayhi wa sallam. amiin amiin sant si mag ginnaaw daal tamit Sëñ Babacar. wallaay ak Mouhamed mi. waaw di leen bëggee baax. di ñaanal ñi doon seetaan émission bi yëpp. wallaay di leen ñaanal yàlla. Mm-hmm. yàlla na ko yàgg di teewlu. amiin télé bi yàlla na ko yàlla yokk. amiin amiin jërëjëf. jërëjëf kon su ko defee rek. Ah, eh, noonu lañuy dikkee nag dégg maam di profito dégg maam ah, di sant dégg maam mboolem koo xam ne ki yaa ngi ñu seetaan ak foo mën a nekk ci àddina si rawatina nag waa Amérique dégg nga. Ibrahima Dramé sunu doom dégg maam ak waa daayira ba ak ñépp ñu mu fa nekkal dégg nga maam ñoo ngi leen di sant leen gërëm dégg nga waaye di siyaare bu baax a baax dégg nga Cheikh Awa Balla Mbacke si dégg nga ca France dégg nga soxna Faat ca France dégg nga soxna Awa ca France noonu la siyaare tamit sëñ Jibi Ba dégg maam ci Italie ak mboolem waa Italie gépp dégg maam waaye noonu la ñu siyaare itamit dégg maam ah soxna jëmb dégg ak baabu dégg maam ca nga xam ne ñoom ñu ngi Espagne waaye noonu la ñu siyaare dégg maam mboolem koo xam ne ki rek dégg maam yaa ngi ñu seetaan rawatina dégg maam waa Thiès gi rawatina dégg maam Sénégal ak Thiès dégg nga daari nimat rabbal alamin dégg nga noo leen di siyaare di leen sant di leen gërëm waaye di gën a fàttaliwaat nag dégg maam le 4 bi moom le 4 moom numéro sëriñ bi la waaye mars bi moom dana marché dégg mooy ki nga xam ne kii mooy sëñ Fallou Ndiaye daal dégg nga bisu alxuraan boobu ak sëñ Ngoore Fay dégg maam fële ca fayu dégg ak ki nga xam ne mooy sëñ Marsu si Jamil dégg mooy ñëw jaxaaw dégg maam ñooñu bis yooyu daayira sob Seydi Jamil daayira soxna nday yàlla na yàlla dool leeram dégg maam Cheikh ñoom ñëpp ñoo ngi leen di siyaare ñoo ngi leen di kii dégg maam kon ñoo ngi woo ñëpp bàyyiwunu kenn rek dégg maam ci bis yooyu dégg nga ñu ànd ko ak yéen dégg maam te yàlla rek tax ngir jëmmi sëñ Tuubaa su ko defee li may def rek mooy dégg maam daayira boobu nga xam ne dégg maam mooy nix mat rabbil ak sopp maam jaara dégg maam ca euh, Touba Parcelles dégg nga xam ne dégg maam euh, sëñ euh, Baye Salim Ndiaye moom mooy jëwriñ ba ànd ak sëñ Aline mbay dégg maam waaye mu ko ànd ak dégg maam suñ Mun Ndiaye mbay wàlliyu ànd ko sëñ sàmba waaye ànd ko ki nga xam ne kii moom mooy sëñ Moutala ak soxna Ndey juuf mi nga xam ne moom mooy jëwriñu daayira bi dégg maam ñoom ñëpp dégg maam ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax ak mboolem soxna yu nu àndal waaye di leen wax ne dégg koo xam ne kii dégg nga chauffeur taxi la am na soxna Ndey juuf dégg maam dafa amoon xaalis bu xaw a takku dégg maam dafa dugg ci taxi bi dégg nga bi mu duggee toog ci kanam dégg nga dafa génn ci kayit junni yi mu yore woon dégg nga mu daal ci fay borom taxi bi defaat ko ci saag bi toog léegi nag pochette bi pochette bu ñuul la xaalis bu takk moo ci ne xamuñu ndax dara daanu ci biir oto bi ci taxi bi wala dégg maam daa wadd ci suuf te gisu ko waaye képp koo xam ne ki yàlla def na gis nga ko soxna Ndey juuf dégg maam mu ngi dëkk parcelle googu dégg nga unité waaye dégg maam numéro téléphone am dégg nga 77 la 141 62 22 77 141 62 22 dégg nga kooku mooy numéro téléphone koo xam ne ki jot nga ko dégg maam te nga dimbali ca yàlla rek tax dégg maam soo ci wootee dégg maam di nga ko mën a jot wala dégg nga nga woo man mii fii ci Prestige Thiès TV dégg maam mooy Cheikh Ousseynou Sy Naaru Borom moom ku ma woo ku mbaa nga soxla ma foo ma laajte di ma jot dégg nga kooku nag sama soxna la dégg képp koo xam ne kii gis nga xaalis bi nag ñu si dimbali su ko defee damay jox rek dégg maam Babacar mu tëjee ko dégg maam ah loo koy tëjee Babacar يا شيخنا يا أحمد أحمد جاني قطب الوجود ونعمة الأكوان ala sayyidina rasulillahi wa ni'mata rasulallah seydina rasulallah sang faas sëriñ Babacar si nee na ahmada tinjaawaani sëriñ Babacar si nee na ni ma mel rahilan mutasabihan rukubaani naxwal jinaani ruuxi wa rayhaani tijaani addil ulukata min asirin alatin hasil hawaajisi muddatal asmaani cheikhuna tijaani addil bayaana li aliha يقول عبد الله وهو أحمد قديم من تماد محمد يقول عبد الله وهو أحمد بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد قديم من تماد